J'ai commencé par Worosoli, puis par Matam. Me voilà aujourd'hui à Kanel. Relativement à la question de l'assainissement, à la l'accès aux services sociaux de base, à la question des infrastructures dans le domaine de la santé, mais aussi la question impérieuse de trouver du travail aux jeunes et aux femmes du Fouta. Après avoir parcouru Canel, je vous dis que je suis triste. On vous a oublié. On ne vous a pas fait participer répartition des richesses qui sont générées par le pays. C'est pourquoi dans mon programme, je préconise l'équité. c'est dans la répartition des ressources que Dieu a gratifié le Sénégal. maa ngi leen di nuyu di leen sant bi ma ñëwee fii ma njëkkee Wuro Sogi ñëw Matam ñëw Kanel sama xol dafa tàng Macky Sall bi noo wooyee doomu Fuuta defu fi dara man mi xam ne Ndar laa dëkk dëkk Sénégal fas yéene naa ñëw faj problème mu Fuuta dinaa leen wutal ndox wutal leen courant ñu jël leen ay dispensaires ay centres de santé yu doy dinaa fi def ay unité de transformation yoo xam ni xale yi daan ci liggéey parce que dinaa fii jàpp lu baax ci élevage bi élevage bi dana leen jëmale kanam waaye sama xel aussi mi ngi dem seen doom yi nga xam dañu nekk bitim réew danaa jël le fonds d'appui aux Sénégalais de l'extérieur ma def ko banque nationale banque boobu day jàppale suñu mbokk Sénégalais de l'extérieur yi seen projet seen problème mu sécurité sociale bi nu am ci réew yu bëri danaa fexe ba waxtaan ak réew yooyu ba du ñu ñàkk seeni droit danaa créer benn société de transfert bu mag lépp lu fa jóge